bu ñuy dem ci département bi commune yëpp amoon nañ fa ay représentant ñoom ñëpp nag ñoo bokk ak ñun di wax kàddu yii may wax amul benn commune boo xam ne am nañ fa représentant te àndul ak ñun ñoom ñëpp ànd nañu ak ñun. di wax ne gannaaw bu dañee liiree déclaration man Ahmed Youssouf Bengelloune mi nga xam ne ne maay président conseil départemental bu Kaolack di njiit mouvement Kaolack nouvelle vision. maa ngi wax fii seen kalam solennellement que ne maa ngi bokk ba tey ci mouvance présidentielle ba tax na mouvement bii ma jiite ak allié ñun ñëpp ñoo ngi waxaat fii nii di réitérer suñu engagement suñu jàppale ci président de la république son excellence Macky Sall. ba tax na inshallah election élection législative yi ñu jëm té ko le 31 juillet 2022 yalla ngi fekk ñun ñëpp dinañ jàppale liste bi nga xamné ne la nar a proposé sénégalais yépp loolu moy li nga xamné ne ne bëggoon nañ leen ko eggee sëñ mu mu Amina Niass ne woon a bëggoon a fi teew wax ne ñoo mom ñoo bokk mébét bii nii muy lan jàppale président waaye dafa am ngànt yeewal na yebal na fi benn ndaw muy Aliou Lo mi nii ci assistance bi lii nag ñu leen di wax muy déclaration bii nii du yàq dara su ma ànd ak su ma mag sëriñ bu ci suñu liggéey ci dans le cadre du développement local leen rek lañu bokkul muy projet national bi nga xam ne moom am na ko muy dem ci élection yi man ci élection yi comme nu mu la ko waxee président de la république laay jàppale jërëjëf